su ma jógee ci loolu ñu ñëw ci li nga xamante ni nii maanaam waa ji nekk Europe woo gars yi di leen may xaalis ñu gis ci kii nga xamante ni mooy a neex di di di di di xas ki nga xamante ni mooy Viviane di bala ay xaalis ci ab mbër mu toll mu am a neex noo gisee loolu est-ce que loolu ñàkk jom laa. gis nga mbëri am man waxuma sax mbër ama neex waaye waxal. Mhm. nga a neex. li mu def dañu lay yarlu salaam jaaloo nga fa. balewul. njole jigéen la moo yeyoo bale balewul ñaa mu ngi fa balewul kañ may xaalis baa ngi fa balewul yow ngay nekk benn saaru markat yooyu noonu di mar pour après yow luñ la jox ngay mar mala sum waay jël bale di bale ama neex dañoo tuutal waaye ñun ñun baaluñu ko ko baaluñu ko ko. ndax am na ci ñoo xam ne bu ñuy wax mbëri la ñuy wax. waaye benn mbër sëñ bi benn benn journaliste bu defee journaliste yëpp la ñuy wax. ndax benn xar bu dee dem dañ naan bee benn xar ak ne waaye bu dee groupe la danaa xar yi. Hmm. am na ñun la yablu dem ay Europe di bare ay xaalis di ñàkk loo fayda. bërëb boobu dégg lu naa ko léegi ci si si bi. Hmm. mu ne moom dafa am alal ubbi na dafa dafa ubbi société boo xam ne ay kuus lay jaay. Hmm. nee na képp ku ko kalaas kuus yi yow la koy tuddee te nee am na xaalis isa yi déglu nee ko dëkkal ma micro bi nii bu baax. waaw acca nan la tuddati sax. moo geet moo get moo geet dama bëgg moom nee ko couche yooyu noonu mu doon mu doole ci ay freedom da nga xamal ko ne ko mala la waay moom na am taalibe yaru lu muy jaay jaay jaay bu ñëween fii tey romb fi lu mu moomul. Mm-hmm. lu mu yor ñu ko ëppale fuut ne muut ak moom ñoo fa ne. na yaru am taalibe yaa may déglu. maa ngi lay déglu ama neex na bàyyi Viviane. def ko Viviane dafa liggéey waar waaram. te nekkul damay tarbiyu pour gis kenn Viviane maa ngi koy demande na ma taf si wetam may ànd ak moom ay genre amane ak ñeneen yi barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ku ko laal ñu wax ak moom ndax ay genre dund feeg la ñu dund nekk si YouTube bi naan ko ay ay Viviane amane daa am lu mu yóbboo daa am lu mu yóbboo lu mu ba États-Unis gis fa ay bale xaalis ak ay affaire yu ñàkk fay doon si yor ay doomam nekk Sénégal déggoo ko si lenn lu ñàkk fayda yàlla def na mu ngi sey am si problème am ay sey waaye bu gisul lu ko da siy jóge ndax fii ku gisul lu la arrange dañ siy jóge dama bëgg ama neex mu bàyyi waxu feeg yi muy wax ñu bàyyi Viviane mu liggéey liggéeyam maa ngi nuy par Diouf suma grand suma xarit bërki démb dama doon dem voyage dem ba Thiès si EDK bi dajeeg moom mu génne xaalis bu bari jox ma ko te mënoon na ne tourné naa ak moom kili pare na jeex na ma dajeeg moom si Erika bi mu woo ma téléphone ma ñëw ama neex génne xa kii ya euh, Pape Diouf xaalis bu bëree bëri may ma ko mu daf ma jox xaalis Matar Diouf suba teel jox ma xaalis ma ngay wax ne lu baax rek am njëriñ. Sénégal yal na si yàlla def jàmm bay Fall bi. yaa noonu la demee dañuy ñaan gars yi waajal gàmmu gi. ñu gàmmu gàmmu waaw gàmmu gi gàmmu Muhammad la. sallallahu alayhi wa sallam dëkk bu amee ay feebar balaa. mag yi man fekkewu mooy mag yi waaye dëgg naa bu feebar mos saam am dañuy ubbi jàkka yi. Mhm. ubbi kaamil yi ñaan yàlla feebar bi dem waaye bu fekkee dëkk bi dafa am feebar ñu tëj kaamil yi nan lay demee. lan lañ koy mhm. lañ koy dindee ay guitare lañ koy dindee wala lan. mais gars ñu dañoo a tuubal yàlla yàlla boo koy tuubal doo dem si ay ay ay ay ay ay mbalit si jàkka ngay dem. gàmmu Seydina Mohamed bi ñu gàmm ko. berne ñu ngi sant xalifa général Mouride bi ndax sunu màggal gi wax dëgg yàlla neex na. Mhm. ku tedd kii jàpp na si bañ fa jógee ba léegi Touba da nga faa dégg disque yu fa nekk te bay benn gi yaatu na si màggal gi la ñuy jógee dinaa si waxaale sax.